mbokk yi ñu nuyu leen ziar leen tey ñu ngi vendredi 16 février suba war a nekk la 17 borom la suba mooy coow li borom coow li nag mu ngi nii dañ na tung ne du teew ñuy natt ci ak Assane Ndiaye mi waral coow li ci réew mi Assane ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa leen di nuyu euh, di nuyu mbokki internet bi yëpp waa maa ngi leen di suivre vraiment liggéey bi set na rafet na yàlla nañu yàlla daal eggaleel si jàmm ñu ngi waaj le 17 muy suba Papa saw Ama Baldé. drapeau monsieur le ministre Matar Ba di ci woo Sénégal yëpp di ci woo àdduna di ñaan diaspora bi ñu ñaanal ñu ñu bokk ak ñoom bànneex bi lépp ñaan ci barki Serigne Saliou mu egg si jàmm. Assane Ndiaye suba mooy la 17 nga tëgg combat boo xam ne combat bi ba mu taxawee ba tey balaa muy taxaw coow la bi mu taxawee coow la bi ñu waree soufflé combat bi mu war am suba coow la. <laughs> waa làmb moo baaxew noonu. moo baaxoo noonu mais cooli cooli yëpp si dal lay mujj rek ñaan ci barki Serigne Saliou mu jeex si jàmm ñu tàggaloo ci jàmm ñu seeti leneen ma seeti leneen waaw. mu mel ni tam gis nañ ñaari mbër yi ak seen ay camp dem nañ seen ay open press mbooloo mi bëri nit ñi bëri mu mel ni ñaari mbër yi tam fi mu nekk nii ñoom tey li ni Assane bëggee combat bi ñoom ñaar noonu lañ bëggee combat bi muy Papa muy Ama. waa ñi bëgg combat ñeent lañ man bëgg naa ko. ñaari mbër yi bëgg nañ ko amateurs yi bëgg nañ ko ministre bi raw ñëpp <laughs> waaw euh, ñu ngi ñaan yàlla daal noonu ñu ko bëggee ma bëggee ko noonu rek suñu borom sotti ko noonu ndax ñaari mbër yi dañoo neex a tëgg te waxoon naa Sénégal ñaari mbër yi ñeme naa leen esa amitié tey jii la sama xel gën a dal ci ñoom tey laa gën a am envie liggéey ak ñoom ñaan yàlla mu mottali ko rek am nañu ñuy ñun yóbbante lañ lay wax lii Brésil la jóge ki ñu koy wax siise la tudd mu nga ba Brésil kenn ki mu ngi ba États-Unis kenn ki libaas lañ koy wax mu ngi Espagne ñoo xëy ñu dégg naan combat day am ak du am comme ñoom dañ ñuy laaj ñu wër la ba gis la tey Assane loo mën a wax gaayo ci combat bi. mais ñooñu waral nga leen tontu rek. tontu mais nag xam nga nu ko Olof Ndiaye di waxee gémmañ gémmañ du nàcc di wax jàmm Olof Ndiaye ne gémmañ buy nàcc di metti mënu wax jàmm ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla liñ am. liñ man def nañ ko lépp suñ borom mooy mottali lépp lu ñu waroon def nañ ko di xaar yàlla lépp instant yi ngi ci stade bi di installé lépp pare na ñaan yàlla si kàttanu yàlla lépp jeex si jàmm waxi am moom waxatuñ ko waaw li ci des moom dañ koy bàyyi yàlla rek bii moom maye la Papa Sow Ama Baldé deux mille cinq mille vingt mille loolu musul am loolu la yëpp di bëggee ñëpp am rêve ñëw ci stade bi te stade bi damaa bëgg suba mu mel neneen yor beneen xar kanam làmb ñu xam ne ñoo bokk ndey bokk baay lu coow li bare bare bare bare ci ay nettali rek lay mujj ñaan yàlla na rafet daal na rafet yàlla nañu yàlla taxaw jàppale ñu defal ñu jàmm ñu eggale ak jàmm ñu ñëwaat defaat filmer remercier àdduna mu mel ne Assane itam dañoo gis mu nekk koo xam nit ku ubbeeku koo xam dafa bëgg Sénégal yëpp kontaan ba tax mu ne làmbam du ci génne kenn ñëpp dañuy ñëw participer ci dugg ci ndax feet la feetu ministre des sports la. waaw non dinaa la soxla tey xam nga tey yaa ngi nii soxla ma ëllëg dinaa la soxla noonu la deme rek kon ne da koy jàppee sa bopp xam nga boo fi tëjoo wala nga mel ne neneen dañ la fi romb rek sénégalais moom li mu gën a bëgg mooy ku ko yëg te vraiment journaliste yëpp samay xarit lan ñaan ci jàmm. jeex si jàmm ñu bëgg ñun ñëpp xaral Sénégal jëm kanama ah. sa mbokku promoteur yi tamit gis naa ñu jàpp ci ñoom Pape Abdou Fall Fallou Ndiaye sa fekk naa ko fi gaa yëpp su ma limee damay juum. ñëpp promoteur yëpp ñu ngi fi ensemble du type la ñëpp ñu ngi fi ñaan yàlla daal diggante bi yàlla na ci yàlla gën a def jàmm gën ci taxaw suba ñëpp bëggee ah. le nag. après le après. <laughs> suba la 17 février lambu Papa Sow Ama Balde promoteur bi gis ngeen ko mu wax ci muy asan Ndiaye ñi tamit ñoo yilif seen bi ñu wala ñoo yilif làmb suñu papa Thierno Ka ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa leen di fay di nuyu euh, ñi leen di seetaan itam. Hmm. lambu Ama Balde Papa Sow yàggoon na bëri woon na coow fi mu nekk nii yéen ñi yore lamb ji est ce que mën ngeen a confirmer le Sénégalais am suba. Hmm, bu bu soobee yàlla bu subaa ñu bëri donc effectivement amoon na ay jafe-jafe. waaye yàlla def na si jàmm ba bu subaa incha allah combat bi dina am. Hmm. lépp li war a ñëw ci làmb ji comme reliquat bu CNG war a yore ak yëpp mat na fi mu nekk nii. lépp mat na bu bu matul woon dama lay wax làmb du am comme nee naa làmb ji bu subaa incha allah dinañu bëre mooy lépp mat na yemb na. Hmm. démb tamit seeti nañ monsieur le ministre Matar Ba mu am ay wax yu mu wax ci seen liggéey rafetlu ko ak ni ngeen koy tege ci yoon loolu noo koy dundee en tant koo xam ne dañ ne maanaam sa kilifa moo taxaw wax loolu seere bopp ci yéen. waaw xanaa sant yàlla di ko gërëm itam parce que mooy suñu kilifa bu ko neexoon bu subaa mu jël arrêté andi fi ñeneen donc bu fekkente la ñuy def ah euh, doy na ko wala bokk neex na ko ah, xanaa ñu sant yàlla gërëm ko itam. parce que euh, li nit ñi réeri mbir mooy CNG du fédération boo dangay ngay jékki di dégg a nit naan woy dama bëgg a candidat amul candidat waa ji mooy seet ka ko neex mu dox ko lu wolof yi di wax rek moo ci nekk booy may mën ngaa may ku leen neex mais booy dénkaane da ngay dénk ko wóolu xëy na nag Alioune moom la ministre yi moolu parce que Matar mooy def naa fukki ministre ak ñett yu ñu liggéeyal depuis Ousmane Paye donc bu ñu nee euh, euh, ministre Matar Ba Alioune Sarr la euh, la wóolu certainement am na parce que fekk na ko fi bàyyi ko fi mais ñi ko jiitu ñëpp mel na ni ñoom itam wóolu woon nañu ko donc sant yàlla bu baax. ñu tuddee ko drapeau ngeen nekk di ay ndawam. Mm, di ko maanaam nekk ci liggéey bi ak moom loolu tam nu ngeen koy dundee drapeau bi ñu ko tuddee pour suba sargal ko. xam nga sànq da nga ne amoon na ay jafe-jafe ba ci cappaandaw gi yàlla def na jàmm ba làmb gi dina am li mu nekk suñuy drapeau kilifa moo taxoon itam lu bari ñu jàpp ci pour muy suñu contribution. donc loolu ne bu du woon loolu si may nañu lu baree bari loo xam ne moom nañ ko jël waaye dañ doon jéem seet nu ñu def waxtaan ak mbër yi convoqué réunion et cetera ba yàlla def ñu toll fii donc euh, ñu ngi koy rafet rafetlu di ko félicité moom Matar Ba parce que euh, ministre bu euh, ñu ngi koy waaye disponible daanaka doo dem di ko seeti di wut ay rendez-vous ak yow agence bu fekkente ne loxo bi féex na saa yoo ñëwee mu wax ak yow maanaam suba comme mbër yi mooy nag kàddu gu mujj xam naa loo leen di dénkaat rek mbër yi war a ñëw fii bëri si suba. ah waaw mais comme am na ñoo xam ne ñu dégg naa ñu ngi ñuy xaar pour layoo ci ay xaalis. layoo fan ci tribunal wala fan. ah moom moo xam de moo wax ne. ko kan la ko wax loolu. ba mbër mbër benn mbër la rek moo ko wax. alors donc euh, nañu fexe ba loolu da bañ leen dal ñoom. parce que règlement bi mu ngi fi. nañ ko xool jàng ko jàngul ko jàngat ko balaa ñoo ñëw. ñëw. biñ leen joxee euh, règlement bi yàgg na jiitu suba donc yàgg na biñ leen ko joxe te lépp looy dugg dangay seet naka lay doxe bu fekkente ne seet nga na muy doxe xëy na euh, mu am ay problème yoo xam ne doo ko am. donc dénkaane bi mooy ñëw heure euh, ànd ak lañ leen may ci ay nit moo xam ni ñu àndal ci géew bi wala ñi leen di tëggal euh, bu luñ leen aaye ñu moytu ko lu leen may itam jël ko bu mu jeex takk waaye euh, dañ leen di def nañu réunion ak seeni manager ku nekk si ñoom yóbbu na kayit bu ñëpp signé gendarmerie signé police signé donc bu ñu jógee naan comme ni ñu ko defee woon ci combat bële. mbër yëpp ci benn bunt la ñuy jaar parce que dégg naa ay wax yu dem ci deme noonu benn buntu la mbër yëpp di jaar oto du dugg ci biir gi euh, du biir stade bi dañuy wàcc dox dugg te itam ñi nga xam ne ñi ñooy ànd ak mbër mi mbër mi kenn du ko laal kenn du ko jege waaye ñi mu àndal ñëpp dañ leen di fuye dañ di fuye parce que dégg naa euh, am na slogan bu bees bu génn euh, Pikine xaw ma caw xaw ma je sais pas quoi. caw sa sa xiir. bu ñu ñëwee dañ ko nangu. caw sa xiir am na waaye am na bu ci doole ko mooy yetu mbaam muy dóor sa yet. loolu. waa parcelle ñoom dañu ñoom nañ duñ caw xiir la ñuy dañuy dóor yet moom te yet mbaam lañ koy dóor. ah waaw bu ñuy dóoree mbaam day bu ñuy dóoree yet day ah am na ñu nekk ci bunt bi ñoo xam ne yaakaar naa duñu d'accord ci loolu de. Mm. te ñoo bañ nañ ko waayi. kon yet ak xiir daal benn du ci dugg ci làmb ji. wax nañ ko alkaati yi de. Mm. Mm. Papa Sow Ama Baldé noo ko man Papa laa faral. man naa daan Ama Baldé jël bu sedd wicc jël boo xam ne bu sedd wicc ndax soo xoolee ma wax la jël bu sedd wicc la ngay daan Papa Sow moo ko njëkk si làmb ji moo ëpp victoire moo ëpp expérience da koy daan jël bu sedd wicc boo xam ne amul weran ñun Ama Baldé lañ wax ñun waxuñ sax Papa Sow de Modou Lo lañ wax lan koy Modou Lo lañ jëm si soxla wuñ Ama de soxla wuñ Papa de Modou lañ soxla ñun Modou Lo na préparé boppam waaji affaire bi caw saxir la caw saxir Ama day yëngal gaay yi gësam ci kaw barki waaye papa kuur la indi kuur. mais naa la xamal waa Pikine lañ Pikine tey ca Zakir te combat bi du yomb danañ. mais waa Pikine yéen waa Pikine yéen moom parcelle xanaa kon. kon ñun ñun ñoo moom Pikine ñoo moom parcelle te boo war nañu ko mën a xam ne waa Pikine dañu comprendre